salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp defal ñu tawfiq àdduna ak alaaxira xam na li xew ci wahabiyuuna yi ak seen wax ju bari ji fan yi surtout ci média beeg télé yeeg yu ni mel nga xam ne ñoom sax dañ ko doon daw ak di wone ne am nañ yeneen yoon yoo xam ne fa lañuy ñuy tasaaree liñ gëm fu dul eh, kii waaye gis naa ne sawar nañ ci léegi ndax dafa am ay faay yu bëri yoo xam ne fokk fuq yuñ bëgg a làq ak ñuñ bëgg wone seen bopp ci penc mi te meluñu ne eh, bokk na ca loola nag dalal giñ leen dalal ci plateau yi ngir ñuy sos ak di wax lu amul ak di réer réerlu ci mbir yoo xam ne mbir yu leer naññ la bokk na ci mbir yooyu li nga xam ne Mor def na ko maanaam ñu dalal ko ci benn jotaay ci sunu Sunugal 24 euh, ngir mu waxtaane lu jëm ci wahabisme ndeke moom wahabisme sax xamu ko te ci lay dund nag waaye du caage ne da ko xamul waaye dafay réeral nit pour wone ne loolu lu ñuy wax wahabisme ci boppam existé te lool du dëgg léegi nag ci loolu nag jàpp na ne nit mën naa taxaw di théorie ci taxaw ciy fen di théorie ba fen ya nekk dëgg loolu moom jàpp na loolu wa aanahu alayhi qawmun aaxaruun ndax sëñ Abdou Khader Fall mii toog am na lu bëri lum appuyé ci biir débat bi xawma ba xam xam na ne loola amul walla mu nekk koo xam ne day dimbali euh, Mor Kébé rek ci maanaam sosam yi nga xam ne moom la bëgg a taxawal te mënta taxaw ala ayati xaal laaj bu njëkk bi rek fi laay yem mooy laaj bi ñu ko laaj ne ko lan mooy wahabisme wahabisme mooy lan te léegi su ko defee yeneen laaj yi xëy na jot dana maye ñu mën ca jaar ndax déglu nañ lépp ba mu jeex te li ci nekk dëgg daanaka lees koy wàññi ci baaraam euh, su ko defee mënee su tontu lépp ci benn jotaay waaye liñ ko laaj wahabisme mooy lan ak lam ca tontu loolu moom mooy taxawaay bu njëkk bi ci daaj ji feni morkete yi sama man dama xool ci livre yi ba sonn <laughs> euh, di xool ba xam wahabisme ndax dafa nekk loo xam ne ab doctrine la wala dafa nekk aw yoon wala ay école mais euh, foo xool daanaka doo gis lu ñu tuddee école wala lu existé lu ñu la ne wahabisme nii la en tout cas dama dem ba gis sax ci ay histoire ñuy na Abdul Wahab Rustum ma ci surtout si Abdul Xaadir Jaylaan yi gisoo ko ñëw Abdul euh, bu ma demee tamit ba gis Mouhamad ibn Abdul Wahab bi donc gisuma am doctrine bu bees wala mu wati wala dafa am benn rapport bu nga xam ne ñun Euh, li nga xam ne nag mbokk mi def na ko ci ndorteelu waxtaan bi mooy di laaj ba noppi euh, di wutal ki ngay laaj yoon wu mën a jaar pour daw loolu bokkul ci journalisme booy présenté dara <coughs> danga koy laaj lan mooy wahhabisme moom mi tontu mooy leeral ba xam wahabisme lu existe la wala waaye yow miy laaj nga xàllal ko yoon yépp wane ne yow gëstu nga ba gis ne loolu amul fenn léegi nag laaj bi léegi jëlal laaj bi yow loolu xanaa loolu mooy ñëwal appuyer ci li ma wax ne amul fenn nga ne amul fenn loolu kese la maanaam Abdul Qadir Fall li wax Mor Kébé ne ko léegi lan mooy wahabisme yemul foofu waaye moom mu wane ne moom Abdul Xaadir wër na fépp gisul lu ñu tuddee wahabisme te moom muy gëstukat kon wahabisme amul kon moom Abdul Xaadir ma ngay xàllal xarit ba fu muy jaar man xaw ma nag euh, ba xam da koy def loolu pour <coughs> ndax noonu la jàppee ne noonu la ñuy laajee wala boog mu def ko rek ngir ne. Euh, bëgg naa waa ji am idéologie wala ba bokk nenn na muy tontoo noo xam ne man maa koy junj ci ndorteel li waaye li nga laaj wala li mu laaj moom mooy moor yow boo ñëwee mënoo wax lenn lu dul ne existé ndax ñoom dañ koy daw comme dañ koy daw nag yow boo leen laaj da leen laaj ne luy wahhabisme waaye luy wahhabisme man gëstu naa fu nekk pour xam luy wahabisme mais gisuma dara gis naa te gëstu bi baaxul ndax yow ay tur ngay wër <laughs> léegi ba ma xoolee ma gis Abdul Wahab Rustum yii yëpp layu gaaya la maanaam Abdul Wahab Rustum mi Abdou Qadir du ko xam noonu kese kese de gaa yay lay di wax ne wahabiya ñoom doonuñu ko ñooñu dañoo indi ne Abdul Wahab Rustum kiiwam ngi lam doon woote loolu la ñu tuddee wahabiya foofa lañ ko tay dégg nga wala ñu ne benn waay boo xam ne surtout Abdul Qadir Jeylaani la woon mu wahaab la yooyu du problème parce que euh, loolu du daara ci bahs bi bahs bi moom boo bëggee xam luy wahabisme loolu jurul sonn maanaam coono bi Abdul Qadir Sall def pour xam luy wahabisme mook ak ak euh, coono bi mu def pour wane ne fu nekk wër na ko pour xam luy wahabisme mais gisul dara kon abdou qadir fa nga wëre wër teg fa sa baaram tegoo fa dara tegoo fa sa baaram gëstu woo ko fa nga ko war a gëstoo lu nekk nag ci penku nga koy seete ca soowu doo ko mës a gis wahabiya dadul mbir moo xam ne dafa làq wala faaw nga liir ay téere yu bëree bëri pour wahabisme da ngay xul xoolee sa bët rek xool rek gis xool képp nga gis am na ay nit yu taxaw nit ñooñu ñi ngi topp benn idéologie boo xam ne ku ñuy wax Muhammad ibn Abdul Wahab moo fi indi loolu loolu mu indi nag moom Muhammad ibn Abdul Wahab du ci moom la cosaanoo waaye daa dekkal waxi cheikh al islam ibnu taymiya ak ci pas-pasam ya nga xam ne wuute woon na ci ak boroom xam-xam yi yooyu la dekkalaat yokk wuute ba ñii ñëw doole loolu moo tax morke be ci biir waxtaan wi lenn rek dafa ibnu taymiya muhammad abdullah ñaar ñi rek la tudd seen tur nee na woote bi lislaam beeg sa euh, ahlu sunnati nga day daan yaatu après am ñu ko ñëw dekkal comme cheikh lislaam ibnu taymiya comme muhammad abdullah ñaar ñi lañu am léegi bu waxee ci ñoom nag lii mooy ahlu sunna wal jamaa ci ñoom mooy wax muhammad ibnu abdul wahab ak ibnu taymiya ñii la du ñeneen léegi nag boo ko xaalalee fi mu jaar ba noppi wane ne yow gëstu nga fu nekk te gëstu ko maanaam boo ko doon gëstu no du noonu du kan mooy <laughs> Abdul Wahab di wër ay tur turu Abdul Wahab loolu du gëstu loolu jéem a fàkk yoon wu waa ji daanu la kese waaye Muhammad ibn Abdul Wahab moom ay nitam ñoom la ñuy tuddee wahabiyuna yi te loolu kat ñoom ñoom ñoom nit yi Muhammad ibn ñoo daan saxal loolu lu tax tey nga bëgg a wax ne affaire bi xool nga fépp gisoo ko waaw li li mustashriquun yi bind tuddee ko al wahabiya dégg nga histoire du wahabisme xanaa téere yooyu yow liiroo ci dara téere yiñ bind ñoom wahabiyuna yi di saxal ne ñoom wahabiyuna la xanaa di yow liiroo loolu téere yi nga xam ne ñi doon radd muhammad al te ëpp nañ téeméer ëpp na téeméeri téere yoo xam ne ar raddu ala al wahabiya ar raddu ala al waaw lu tax gëstu woo xool lañ leen di raddoo lan la est ce que dañuy fekk lu am ci sunna ak lu jamaa bi yëpp daan def ahlu sunna wal jamaa ñu cay raddu benn kuréel kuréel ga dañ koy raddu ci la nga xam ne moom rek ko xam moom rek ko indi moom rek ko nekke loolu lañ koy raddoo xanaa gëstu woo rudut yooyu nga xam ne moom lañ def ci wahabiya te mën naa cee lim ay téeméeri téeméeri maanaam ay radd yoo xam ne dañ leen ko radd ci bi muxtalafil usur ak muxtalafil amsaar maanaam dëkk yu nekk am na ñu fay radd wahabi yu ne bind seen téere tuddee ko ar raddu alal du jeex te mu ngi tàmbalee ci magam moom muhammad ibn magam muhammad ibn abdullah magam suleymaan moo jëkk radd moom xanaa téere boobu liiroo ko pour nga xam lan mooy wahabiya ak lan lay wuuteeg nit ñi kon fàkkal nit fu muy daanu la te moor moom da munta am fu muy daanu te du gaañu loolu munta nekk ñu déglu ko ba xam lu muy wax alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala waaw question bi nga posé question bu pertinente la muy wahabisme wahabisme lan moo ko indi ndax courant la boo xam ne ba suñu sax duñu wax sax xëy na benn doctrine mais courant boo xam ne dafa ñëw ci histoire islam ñu ne li benn courant la boo xamante ne ñu tuddee seen bopp wahhabisme am seen gis-gis yu bees am nañu déggee diine lu bees dinañu tële yeneen jullit yi am xëy na njiit bu tudd abdul wahab ñu askanale seen bopp ci moom ñu koy ñu leen tuddee ay wahhabiste wala wahhabiyun bu fekkente ni loolu lu amoon la dinañ mën a wax ne tel groupe ay wahhabiste lañ mais li doy xam nga loolu lu doy waar la nee na loolu amul loolu amul mooy lan maanaam amul benn tayyaar benn courant boo xam ne dafa ñëw gane si ci lislaam seen njiit tudd Muhammad Ibn Abdul di woo ci gis yoo xam ne amul woon mu wuute leneen ak jullit nee na lii bu amul moom luy am moom laa xamul man lan mooy luy am sax maanaam ak am ci boppam xanaa moo existeetul wahabiyu ni ñoo fi indi xeex takfiir nit ñi xeex ak ay jullit maanaam ak i pas-pas yu yees yoo xam ne amul woon ci lislaam boole ceeg pas-pas ya ñu dekkal xanaa moom moor moor keme dafa jàngul dara ci taarixu Muhammad Abdul Wahab moom lan lañ doon xeex ak yeneen jullit ñi ñoom lan moo fi waraloon waral mu jël jaasi di jiixaat ci ci yan pas-pas la doon jihaate moom di rey ay nit moom est-ce que amul ñu ko ca topp te bëri nañ lool ña ko ca topp ci nan lañ ko toppee waaw kon kay am na lu ñëw am lu muy xeex am ñu ko ànd ak moom mu doon seen jiit ko jiitu woon Muhammad ibn Abdul Wahhab la ña topp ci gannaaw ay wahabiyun la mooy unaasun muntasibuuna ila shaxsin ismuhu muhammad ibn abdul wahab loolu nag mu indi bëri na ay xalaat yu yees loolu tey xalka bi du pour loolu maanaam pour indi gëm-gëmi wahabiyuna yi nga xam ne ñoo wuuteeg julli ñi takfir rek li ci muhammad abdul wahab di def tasfir ay borom xam-xam diw sàngam ak faru min min min an nasara wal yahud ak nangam ay boromi xam-xam mu ne diw moo gën a nekk yéeféer loolu pas-pas Muhammad Abdullah ak ñi ànd ak moom takfir ulamaul umma loolu am naa ko ci ay nusuus yoo xam ne mooy wax di takfir du mu inkaar ci ay masail yoo xam ne ibnu taymiya lañ xamoon ci ko inkaar loolu mu jeqiwaat xalaat yu yu juunu yooyu ca Ibn Taymiya di ko doxalaat nit ñi topp ko ci kon xanaa loolu xanaa tayyaar moom lu muy firimo te man li ma jaaxal mooy sëriñ si ñoom sëriñ si maanaam ay ibnu Usaymin ak yu mel dañuy wax ni haadihi xarakatun wahabiya xaraka wahabiya nangam la mais lu tax moor ne yii yépp amut pour nga xam ne ñoom ñi benn ñaari mbir moo mën a am waxtaan nañ avant ñuy ñëw wala ci émission bi am na ay parties yuñ ci dagg ndax am na lum junj ci waxu Abdou Khader Fall moom Mor Kébé Abdou Khader Fall waxu ko benn yoon ci biir émission bi waaw am na lum junj ci biir émission bi léegi li sama laaj mooy ñoom ñaar fan lañ waxantee lii lii muy bëgg a wax nii. nga sànq sa biir wax sa benn wax bu am solo. mooy tur la boo xam ne turu dàggasante la li yàlla no xam wala tanaabazu bil alqaab ak tanaabuz bil alqaab moo indi loolu mooy am na nu la nit ki tuddee neexu la yow tamit nga utal ko tur pour di xulóor pour xulóor kon gis nga lii Mor Kébé wax Abdou Khader wax ko ci tàmbalima bi yëpp nee ko junj ko ci sa tàmbalima ne lii turu dàggasante la waa léegi baatu turu dàggasante la kañ la ko Abdou Khader wax ko ci émission bi moom kon waxtaan ngeen avant ngeen fii wala boog ngeen wax ci wax ji loo xam ne dañ ko dagg en tout cas liñ seetaan ñun ci tàmbaliment bi ba fi Mor Kébé di waxee ne junj nga nangam junj ma dara xawma nit ñi xam na li may bëgg a wax déet léegi nag Mor moom kon jàpp leen ne weddi na ne wahabiya amul weddi na ne amul ay nit itam yu wax na ñoom wahabiyuuna la weddi na ne amul ay nit itam yuñ naan ñii ay wahabiyuna la te teg ko ci xam-xam moom jàpp na léegi ku wax wahabiyuna rek wala ñii ay wahabiya lañ mooy ci tooñ nga ci jublu ak ñaawalaate ak diaboliser léegi nag man li ma jaaxal mooy Muhammad ibn Abdul Wahab ñi cay nisba wax ne ñii ay wahabiyuna lañ maanaam ay wahabiyuna lañ mooy ñii de ñi ngi jokk ci ku ñuy wax Muhammad ibn Abdul Wahab waaw lii lan moo ci nekk lu nit di taw ak di wax ne tuuma la ak di wax ne dañ koo def littan fiir dañ dañ dañ dañ ñuy tuddee wahabiyun ngir ngir ngir diaboliser ñu waaw wahabiya ñu ci diaboliser nit mi ngi mel na ñu ne kii maliki la ci fiq maliki la rek mu daati mer ma kii yow li nga ci jublu mooy di ma jéem a diaboliser diaboliser jëm fan xanaa day fekk ne Malik moom dafa tojoon dëkk bi tooñ léegi ma bëgg la fa askan nga bañ yii moo mën a nekk waaye buñ ne diw sénégalais la nga ne gis nga sénégalais bi may askan yëpp nag pour bëgg maa diaboliser moo tax xanaa day fekk sénégalais yi ñoom kenn baaxu ci rek wala senegale yi dañoo def ay ñaawteef wala séné waaw lan moo tax ñu ne ci diw nga jokk nga ne diabolisation léegi lan moo takkale diggante diabolisation ak turu jooju Mouhamad Ibn Abdul Wahab yokku ca kañ la nekk diabolisation maanaam léegi yow buñ ne laa yow masalan de eh, diw sàngam ngay topp nga ne diabolisation lañ ci jublu mooy diw sàngam moom moom kon kenn wërta jokk ci moom maanaam te kat nit ñaa ngi jokk ba tey di wax ne man xanbali laa maanaam Ahmad ibn Hanbal laay topp ci li muy wax ci fiq wala kii ne maaliki la maanaam imaam maalik lay topp ci lu jëm ci fiq kii ne ashari la sax mooy ci wàllu pas-pasam aqida ashari la yor mooy muhammad abul hasan al ashari moom lay moom lay roy waaw bu ne yow wahabi nga maanaam yaa ngi toog muhammad abdul wahab yii yëpp tur yii ñu wax yëpp nekkul jabalisation benn rek mooy jabalisation nga ne Muhammad ibn Abdul Wahab ngay toog maanaam boo nee yow wahabi nga rek jabalisation la waaw xanaa Muhammad Abdul Wahab moom du ko baax xanaa wooteelul woon lislaam xanaa lam doon woote du dëgg xanaa nekkul woon ci yoonu sunna xanaa nekkul woon daawa salafiyya comme ni ngeen koy waxee may daw bi pour lan la maanaam wax ne wax ne Mouhamed Abdou Wahab kuñ ca boole diabolisation la loolu lan la maanaam lu muy tekki man da li ma ci comprendre mooy Mouhamed Abdou Wahab ku bon la woon koo xam ne bu ñu la ci askane rek ñi ngi lay bëgg a rey ñi ngi lay bëgg a génnee ci sunna buñ la ci rek mooy yow doo ku baax buñ la moo tax ngay daw askan gi waaye Mouhamed Abdallah su baaxee mbiram yëpp jekk mu wooteel sunna xeexal lislaam waaw man damaa jokk ci moom moom lu ci nit di tiitee ak di daw ak di wax ne diabolisation la man loolu mooy sama problème ànd ak lii nag xaw ba tey xamaguma sabab bi loolu laaj la bu may bàyyee gëstukat yépp ñu gëstu ko lan moo tax nit koo wax ne ko yow wahabi nga ci saa si lay mel ci jamono jii ñu toll lan moo tax nit koo wax ne ko wahabi yu day daw du ko nangoo nekk waaye koo laaj loo doon ci fiq mu ne man de hanbali laa man de maliki laa ñoom ñi ngay askanoo ca Malik de ñee di askanoo ca Ahmad ibn Hanbal ñee di askanoo ca Abu Hanifa ñee ca Shafii ñee sax ca Abul Hasan al Ashari wala Abu Mansur al Maturidi yëpp ñu ci askanu waaye Muhammad ibn Abdul Wahab moom kenn nanguwu ca askanu te loolu nag lu yees la maanaam lu yees la mooy ñii ñoo tàmbali di wax ne ñun bokkuñu fa te kat seen wax seen jëf seen doxalin seen doctrine seeni seeni ya ñuy ak ya ñuy saxal yépp Muhammad ibn Abdullah moo ko saxal yépp ay xalaatam la yépp aw doxalinam la amul lu ñu wuute ak Muhammad ibn Abdullah amul te ñoom ñëpp it saudiya mooy seen qibla mahdi daawatil wahabiya foofu mooy seen qibla fa lañ roote itam waaw boodul wahabi lan nga lan nga boodul wahabi nga ne man ahlu sunnati wal jamaa <laughs> wal jamaa xam nga ne loolu caaxaan mënu ko weesu léegi nag ñu ñëw ci wahabi yi ñoom ci boppam lii Mor Kébé di wax dañ ko dàq جمله وتفصيلا ما أنا دي جيما داو لولو نيوم دنجا اسكانو سيني سيرين سيرينو مور تبي نيوم نيوم ابن عثيمين اك يوي نيوم دنجا اسكانو اسكانو تي وهابيه دا كاي ماغال يتام امو نيو تي بروبليم لغي لات مو تخ نك نيوم ني نيو تاي ام بروبليم اك بام بي لولو ابلاج لا بو خام ديس كاي بايي گستو كان امنا امنا تيري بو نيي واخ المورد العزب الزلال fi kashfi shubahi ahli dalal Abdurahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab maanaam kii moom sëtu Muhammad ibn Abdul Wahab la Muhammad ibn Abdul Wahab moo jur baayam Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab moo ko jur léegi boo demee ci téere boobu daarul asima ci Riyaad lañ ko tamroon dégg nga dégg nga fekk foofu ci al azzu zulaal moom wahaabi la maanaam moo xam ne ba mooy maamam sax nak mom nak ci borom xam-xami tayaar bobu la bok day wax nak wahaabiyuuna yi man al wahabiyun man yuqatilu al wahabiyya wa man yukaffirun lolu ab ab unwaan la day wax ñan la wahaabiya ñan la xéxal wala ne ñun duñu xéx ak diw duñu xéx ak diw ñun ñi nii xéxal nangam nangam دينغا ومن يكفرون نين لا وهابيه دي تكفير مو وهابي امول دي كوم لي غاي واخ ياك عبد الخادر وهابيه امول اك دابا سيت فوني غيسمako نيو لين في خانا ليف لين لي المورد العذب الزلال دافا من يقاتل الوهابيه داي ليرال الوهابيه نين لا نيي خيخال ومن يكفرون نين لا نيي كي من نك قال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سألني الشريف عما نقاتل عليه وما نكفر به فقلت في الجواب إنا لا نقاتل إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان بعد التعريف كما نعلم نعلم كون فوف مان فاي ليرا نيوم نيوم وهابي با نيو لولو نيوم وهابي نيان لا نيو boo demee ba tey ci azbul eh, mawridul azbi zulaab da nga fekk loolu léegi nag kañ la ñëw di jéem a kontar naan ay wahabi yaag nangam ak nangam kañ la tàmbali xanaa loolu loolu moom ci benn base laa gisee mu bind di di ñaaw naan naan gaay aada ul aqida ñoom ñoo ko tuddee nit ñeeg nangam ak nangam waaw mais amul woon ci gaa ñi def lu mel noonu xatta ibnu Usaymin ci euh, mooy majmuu fatawa wa rasaa'il al Usaymin téere boobu dañ ko laaj ne ko euh, wahabiya yi naa am na lu waa laaj ba tudd wàllu wahabiya ah mu ne ko alwahabiyatu walillahi alhamdu alwahabiyatu walillahi alhamdu فإننا نخبره وغيره بأن الوهابية ولله الحمد كانوا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع واتباعا لسنته ما mu ما خمل ngi xamal aji كل ji ak keneen ku jàpp sunna su yonent bi salaa sallam ñoo ñi gën a jàpp alxuraan ñoo ñi gën a màggal yonent bi salaa sallam waaw ñii muy tagg moom ibnu Usaymin naan ñoom ñoom ñoom ñoo ñooy ñan amuñu amuñu li Abdou Khadre wax amuñu wala li Mor Kébé wax amul amuñu xanaa am na ñu muy wax ñoom ñamiy wax ñan la ñamiy wax naan ñooñu ñooy ashadd annaasi tamassukan bi kitaabillahi wa sunnat rasul ñooñ ñooy ñan ibnu usaymin mooy wax da ngeen di déglu téye seen làmmiñ da ngeen di déglu ibnu usaymin li muy wax lan la ibnu usaymin ci biir majmuul fatawa boobu majmuul fatawa rasaale usaymin wax na fa itam ne wa anna alwahabiyata ma hiya illa xarakatun لتجديد من دثر من علم السلف في شريعة الله في شريعة الله سبحانه وتعالى ما وهابية ابن عثيمين هنا حركة له موفمان له بو خمنا دفع نيو نير ديكالا لا رافون كي خم خم سلف كون كي وهابية أم يو بوكي بوكو لغنان من بوكو مجي وهابية واي وهابية أمو لول أو فن له boo ci bokkul da nga naan man de bo man moom xam naa ne wahabi yu ne gis naa ñuy wahabi yu waaye man daal ma ci waaye wahabi ya amul mooy amul soo su fekkee ci nga bokk wala bokkoo ci yi moo ci yem suñ la ko askane suñ ko askane keneen moo ci yem même su fekkoon dañ ne léegi askanuñ la wahabi yi ñu koy askan ñeneen sa sa wax ji mooy amul mooy même ñu koy askan sa amu fa kon ibnu Usaymin li mu wax du dëgg te ibnu Usaymin nee na xaraka la xaraka li tëj jii di man dasar léegi boo demee ci téere bu ñuy wax ak ad-durar as-saniya fil ajwibati najdiya loolu moom du téere tasawuf du téere kenn wahabi yu ne ci seen bopp ñoom ñoo bind téere yi di ci wax seeni sëriñ li ñu wax ak lettre ya ca am ak seeni pas-pas ak yu mel noonu boo demee ci téere boobu ci jukki bu njëkk ba 566 566 da nga fa fekk mu ne wasaara baadu nnaasi yasmau bina yasmau bina mu ne kenn ci seen sëriñ si mooy wax de sëtub Muhammad ibn mu ne ñenn ci nit ñi dafa mujj comme sunu tur siiw ñu ñuy dégg ñu ñuy dégg ñu ñuy mu ne ñun maashiral wahaabiya ñun ñi nga xam ne ñun ñooy wahaabiya yi wala yaarifu xaqiqata ma nahnu alayhi te xamul nag suñ dëgg dañuy dégg rek dégg wahaabiya wahaabiya te xamul wahabi lan lañ fas mu ne wa yansibu ilayna wa yudifu ila diinina ma la nad'u ilayhi ñuy yokk nag ci di ñu sosal ay mbir yoo xam ne defuñu ko muy ñëw nag kon pour leeral mbir yi ñu gëm ñoom wahabiyuuna yi mooy lan mais dawul moom naan non ñun duñu wahabiya de eh, wahabiya amul yooyu ci plateau Sunugal 24 lay daw mais loolu dawul ci xam-xam boo demee ci jukki juróom-ñetteel ci page 433 da nga fa fekk itam mu ne wa anna ala tariqatil wahaabiya ñun ci tariqab wahaabiya boobu dafa doon wax ak benn waaye di ko yedd ne ko da war a gàddaay wala nga fésal ne ñi nga ñi nga nekkal foofu ci dëkk boobu nga fésal ne ciy caaxaan te wax leen ko bañ dégg ko wala nga gàddaay ñaar yi moo a nekk waaye mënoo faa toog rek naan nahnu ala tariqatil wahabia naan wa anna ala waa wahabia loolu mënut a nekk gàddaayal wala nga du mel noonu waaw wahabi da ngay nangoo wax leen ni ay yéeféer ngeen wala nga jóge fa gàddaay ñoom ñoo fi indi gàddaay indi fi xeex maaraka gazwa yooyu ñoo ko fi indi léegi di gazwa boo xam ay jullit ngay xeexal nag laa bëgg a wax am na ci téere bi itam ci fukkeelu mujallad bi tom fukkeel bi page cinq cent onze foo xam ne mi ngi ko tudde ar raddu ala man ankara ala ahli daawati al wahabiya inkaarahum shirka loolu ab bunt la dégg nga waaw léegi ñii moom ñoom ñi ngi ci ñun la wahabiyuuna yi rek xaw ma foo la nekk yéen boo demee ci douze tom douze page deux cent soixante sept da fa fekk mu ne waqultum aha dafa am ko muy tontu naan yéen a ngi wax naan haada diinul wahabiyati lii mooy diiney wahabiye yi bañul wahabiye gi daf ne naam huwa diinuna bihamdillah lii mooy sunu diine ñun wahabiye lii lañ gëm naka noonu bo demé ci euh bo demé ci 16 numéro seize maanaam mujallad numéro 16 ci ad-durar as-saniyya page 328 da nga fekk mu ne keneen kuy waxtaane wàllu wahabiya mooy borom xaadarul aalam al islami mu ne fa lidalika al wahabiyatu yusammuuna madhabahum aqidat as-salaf waji moy wax muy wax ci wahaabiye mune motax ne moo tax wahaabiye di tuddee seen mazhab ñu ko tuddé aqidat salaf wahaabiye yu xasulen de da fay wax ñom ñoy kan rek wahaabiye dal li motax ñuy wax nangam te kat aw tag la ci jublu de aw tag la ci jublu te ñom ñoko indi ci seen téré ñom wahaabi yu ne pour wax ñi wax ci ñom lu baax te waxu ñu ne li mu ñu wax te moy baatu wahaabiye lii dañ koy bañ ñun askanawut ci wahaab ñun nàngam ñun ñooy ahlu sunna ñun ñooy nàngam ak nàngam loolu amu boo demee ci page seize ba tey trois cent cinquante trois da fa fekk muy wax ne wa min mahaasinil am na ku muy wax ne diw wax na ci taarixam wa min mahaasinil wahaabiyati annahum amaatul bidaa wa maxawhaa ñoom Eh, wahaabi yi bokk na ci seen mbir yu rafet yi ñu def ñoom wahaabi yi ne dañoo rey bidaa daan ko effacé wahaabi yi mu ne wa min bokk na ci seen yu rafet yi ñoom wahaabi yi mooy annahum amanu albilaad allati malakuha maanaam réew yi nga xam ne dañ ko noot ba yor ko dañ ko dañ ko amal defal ko sécurité bu mat sëkk dégg nga loolu ci maxaasinil wahabiya la bokk kon ana kan ci gaa yi la jiitu ak ñi jiite woon affaire bi ak ñi nga xam ñoo porté woon xeex bi ak boroom xam-xam wahabiya kan moo ci bañ ne wahabiya amul kan moo ci bañ ne wahabiya amul bokk na sa am na ñoo xam ne dañuy défendre ci seen tiré ya titre ya day am baatu wahabiya ad da'wa al wahabiya harakatu al wahabiya yooyu du jeex du xaaj léegi tey la ñuy ñëw ñu naan ñu wahabiya amul ay fen la waaye